bu conseil économique social ak environnemental Abdoulaye Daouda Diallo nar na fa rek liggéey installé ko tey jii la ci suba xamle na ba noppi liggéey bi mbëbët bi moo di ñoŋal bu baax lépp luy mission bu conseil économique social ak environnemental. aujourd'hui mission bi nga xam ne moom la ñu ma dénk am na solo lool ndax gis nañ ne ñu ci jamono ji nga xam ne kat dafa wëlbatiku lool rawatina ci sous région bi nga xam ne moo ñu wër tey jii nag gis nañ ne wàllum crise énergétique. sonal nañu ak ci wàllum koom ak wàllum dund gi loo xam ne kat askan wi moom xot na leen lool te kenn rëccu ci gis nañu itam rek amal luñ duppee nouvel ordre mondial bu nga xam ne moom kat ab menace la te askan wi ñu ngi ci ragal lool te yaakaar na loolu rek day ñàkk tolloole ci askan wi kon nag ñu ngi ci jamono yi nga xam ne wàllum terrorisme nag moom sonal nañu ak yéexaay gi nga xam ne wàllum croissance la ak jamono ji nga xam ne kat wàllum ressource minière bi nga xam ne dafa néew lool te yaakaar naa itam rek kenn rëccu ci waaye tam mën nañ mën a fexe rek wàllum bor beeg li nga xam ne moo xoj askan wi ñu mën leen cee dimbali. kon nag war nañ cee mën a gunge askan wi gën leen dimbali jafe-jafe yi nga xam ne moo leen xoj kon nag fexe ba dimbali leen mooy li ñu war. liggéey tax leen a jug itam ba tax conseiller yu conseil économique social ak environnemental namm nag dooleel bu baax seen njiit bu bees bi. waaw monsieur président gëmal ni mission bi nga xam ne moom lañ di dénk daañu ci gunge ak képp nga xam ne acteur la ci liggéey wàllum koom ci aada cosaan ak lépp ñi nga xam ne daal. la leen tax a jóg rek mooy fexe ba daal di euh, téye suñu alam bi ak ay recommandations yi nga xam ne moo tukkee ci suñu liggéey ay conclusions yi nga xam ne daal daanu ko jël fexe ko ba askan wi kat xam lan mooy njariñu institution bii nga xam ne moom la ñu dénk kon nag war nañu gën a mën a futteeku gën a jaajuwaat ngir dimbali leen nekk ci sa wet waaye itam rek gën laa dimbali fexe ba lii nga xam ne moom lañ ci dénk ñu mën a fexe ba ñu mën cee am ak njariñ askan wi yëg ko mu am jeexital gu baax a baax conseil économique social ak environnemental loi numéro 2012 16 bu ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre atum 2022 moo ko créé woon soxal révision bu constitution bi loi organique numéro 2012 28 bu ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre atum 2012 fixé woon organisation am naka noonu fonctionnement am boobaak léegi nag jot na am nag ay responsable yu bëri ku ci mel ni Aminata Tall Aminata Touré Idrissa Seck naka noonu.